fulla lay jëkk a doon ak fayda ak sincérité bëggul hypocrisie ku am fulla ku am fayda dafa am nag loo xam ne nit ñi dañ koy réere mbir dëkk boo fi amee fulla wala nga am fi fayda ñu ne dafa ñàkk kersa waaye nit ku baax dem na nit ku ragal ku ko mere nit ku yiw ku baax dem na ku taxawu njabootam li ko waa dëkk bi di seedeel su ñun ñi njabootam la la la ko jiital waaw dafa am nag ñum ñu yaree xam nga dëkk bi moom da ngay gis ku yor benn million rek ne je suis millionnaire mm-hmm. parce que simplicité dafa baax mm-hmm. ñu yar ñu ci simplicité yar ñu ci ak modestie kër yi ñi ñu am am nañ ko de oto yi ñi ñuy dawal moom la ñuy dawal mm-hmm. waaye nag nit nit rek lay doon muy yar ñu ci simplicité dox li nga war a dox wax li nga war a wax lool si loolu laa xam ci moom ah jullite mën naa wax ne bu kër diine yëpp la bokk waaye Cheikh waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu ah sëñ Matar Seck ci nguraan waa mooy sëriñam moom nag lébu la ñu dëkk Tëngéej dëkkaa suñu maam dëkkaa suñuy tànta dëkkaa suñuy ndijaay ak suñuy umpaañ ñu dëkk si famille ñun ñëpp ñu dëkk si famille bi nekk na député lu yàgg si kër famille ba la dëkkoon fa lay jóge di dem Dakar donc ñun suñu kër amul woon tante amul woon yaay amul woon bàjjan man mii bi ma màggee xaw a am kersa laa ko utatu di ko owee yaa Aja waaye aw jóob rek lañ ko daan wax ndaxte ñun suñu kër looloo fa amoon looloo fa amoon waaw nekk na dépp te lu yàgg di doog am kër kër yi yaayam papam la daan jóge di dem di politique yi. famille bu sa yaay demee sa wala sa papa doo ko yëg. say tàntang so say ndijaay say umpaañ daawuñu yëg sax ne nekk fi ndaxte daawuñu yëg sax ne nekkuñu fi loolu la yàlla def si lépp doo yëg sax ne am na ku la manqué parce que ñëpp ngi fi rôle bu nekk rek ñëpp nga ñëpp la ñëpp si bokk waa éducation boobu la ñu yaree woon ndijaay daf ñu daan yar tante duñu yar umpaañ du ñu yar yaa ware moom ñoom laata député gi bu yàgg laate Ablaye Wade di falu ñoom ñoom suñu yaay la woon loolu yàgg na ñuy ànd guddee bëccëg dégg ngeen moom li mu wax suñu kër gële la nekk la doon kii samay tante sax yaay lañ koy wax loolu laata euh, falu gi waa ñun fekkee nañ waa fekkee nañ lu baree baree bari bu ma limee damay juum te sama yaay yooyu dañu baax bu bëggee wax li mu war a wax da koy wax su ko waxee ba pare nag si instant boobu pare na si wax boobu amaana mu wax la dara sax mu metti la bu subaa xëy na nga àndaale sa mer da lay laaj sax moo yow lu ñu jotale woon sax mm-hmm. waaw yow yow moo yow waaw yow moo yow xuloo ba lal xuloo ba lal la woon sax mm-hmm. fam ko waxee la sa pare ba pare di jéggale di jéggale di jëllale mm-hmm. loolu moom mayu yàlla la mayu yàlla la fàttali moom du fàttaliku dara lu ñaaw fàttaliku dara lu ñaaw te lu mu am boole bokk na ko ak nit ñi nit ñi sax jàppaleñ ne yeen bi day diis yeen bi du diis ndax na xam naa ñima bokal nday laata seen yaay di laa nek seen nday ñu deggal ma man baawlu sama kër nek ñom ñu dëkk fi ak mom mais warawa. amé luñ ko wara wax man lañuy o ne ma ñëwal mané yeen xana dëkkoo leen dem leen ngeen wax li ngeen wara wax ñu ne mun ñëwal mun lañ may owé mun ñëwal kon laata muy dëddu nekk naa seen day kon yan bu du diis ñu am ay soxna yu baax yu yaru yu ma déggal itam def ma seen mag kon eh, ragaluma yen bi xam naa ne du diis te ñi ñi may boot xam naa leen ñu neex boot la ñu doon waaw ñu neex a boot la ñu doon dafa am loo xam ne aussi daf ko def su ma waxee mu ne ma may sàmm andir bi ngaa fay ma testament man ko dimbali ma si testament ma ma dimbali si testament de ne testament taxul a dee tubaab bi dañuy testament tubaab bi dañuy testament wóolu naa leen waaye naa seddale rek lii doyatuma ko dara sant yàlla xam nga lu tax moom damay day man may moom ah moom du ñu yaayax doom am na ku ko musa laaj sa ndax kii sa lal la mu ne ko kii sama caatu yaay la man moom duñu ñaar ben ben ben lañ yeen saay sax ñu waxtaan ba waxtaan bi sori ma wax ko am ko lu ma wax mu ne ma e fatima may sa yaay man ak fi yaay amu fi muy mère bu baax muy yaay ju baax yaay ju yiw ju bok jo nga xamantene xébul kenn man yenn saay man ko waaye lu sa tarixa mi ngi fep mi ci lepp lima denk mom la mo musa denk dama nekké taw ba légui xamé ràññee waaw te na ma ñëpp ñaanal waa yan bi oyof fas yéene naa ko bu baax jërë ngeen jëf amin yaa rabbi amin yéen itam waa Dakar Actu yàlla yàlla yokk leen yokku leen ba ngeen yëg ko